jafe-jafe am na lan moo tax jafe-jafe am na yaa ngi nii ci biir gare routière bi defe naa ni tableau yëpp amul benn oto boo xamante ni si mi ngi dugg mbaa mi ngi génn ci oto boo xam ne day daw raison ak raison oto yi fi nekk xaj na mooy taxi yi ak urbain bi nga xamante ni si ay oto yu mag lañu te ñu limité leen li ñuy yeb malgré nag téyewuñ leen oto yi ñu téye mooy oto yi def raison ak raison ñu koy wax inter interurbain muy sept place minicar car jafe-jafe bi am na ci ñi nga xamante ni si ñoo moom seen oto te dematuñu jafe-jafe bi am na ci ñi nga xam ne ay chauffeur lañu yu dawalaan te dematuñu jafe-jafe bi am na ci ñi nga xamante ni si dañ leen a tuddee ay coxeur ñu nekk ci garage bi di liggéey ci regroupement bi di am dara xëy seetunu sax far ci garage bi. météo bi nag ñun ñëpp ko bokk waaw ndax li tax ñun ñëpp ko bokk famille borom kër bu fekkee ne da nga koo téye lam doon xëyee nga ne ko aritel force mu metti ndax borom kër chauffeur bo gis famille la yor bis bu set dana ñak lu bon bon 5000 ci këram koku nak boko arrêté 15 jours Kazu radio ba légui génnul këram lolu metti la metti mënu ko passé nga xamni lepp lu muy dundé da koy lijeenti rek metti mënu ko passé. transport en commun ben benn yu daw bu bu am urbain la mais du inter urbain urbain la moy taxi ak mbacké Tuubaa ak tata yi mais inter urbain yi nga xamné dañuy genn di dem digënté ndiarém toba kaolax Dakar bobu ba Macky Sall joxé ndigal ba légui ñi ngi jëfe ndigal yi kenn gennul kenn ligéyul kenn ko gis bu ñëwé gaz day tàllali tankam waaye otom takul man mi wax ak yow sama auto 15 jours ngi ni bu také dama ko genné doxi ci soxla dugalaat sama kër demuma fenn sama morom it demul fenn. ndax ñun transport xam nga nit ñi souvent dañuy boole lu bokut auto yi nañu taxaw ñun ba taxawé ba légui sunu pono yi fekkul morom jëg bousé wuñu té amna auto oto yoo xam ñi daw yuñ tudé alu Dakar alu Dakar yoy lu tax taxawuñ ci bañu taxaw comme ni ñu taxaw buñ bañé buñ bëggé fièvre bi baña law dañé wara arrêté oto yépp nit ñi taxaw amna ci gàllankoor bu méttee méttee méttee te coxeur yoy dañu dañ leen reconnaître parce que dañu leena a ci bir garu ben auto transport en commun bu kéti wala bal buy dem amul ci garu routière ben auto bo xamné day daw dëkk ak amul buy daw ñi fi daw ko ci ñew moy man yi ci biir dëkk bi di yeb ay ñet ñu tek ay yoy ci biir dëkk bi buñ ko genn ñom waye auto transpancement yi nga xam transpancement lañ yor ci transpancement yor leen ñuy daw Dakar euh, Touba Kaolack Touba Ziguinchor Tamba ba ba ba euh, Ndar euh, Louga ñi fi doon daw yeb auto yépp dañu bok tawando ben client yi ñew départ bi doon na ñew ci gare bu ñew dañu tok bongo ñu yibbi may legi ben client ñew tu ci gare bi ben ki la ñëw fi gaaraas bi ay chauffeur rek ñoo fi ñew tok tok di waxtaan ba ngoon ñi ay benn benn chauffeur sax parce que ñom dañoo tok ba jaaxle rek kenn ku ne ba say ramet ñoo ñooñu la njëkk laal parce que ci chauffeur bi bu liggéeyul bu chauffeur bi bu xeyul ñew garas yab koku kër sóor bi du mëna yobbu kërëm dépense parce que li fi daan xey ci ci doomu adama yo xamni ci ci ñun lañuy dundu dafa bari bari na ñoo xam ne ci ci ci oto yi la dund di ci la ñuy dajalee téeméeri kii 200 ak 1000 francs ba ngoon jot ñu mën a wàcc yóbbu yóbbu seen yóbbu yët seen waa kër jox seen joxe jox seen euh, waa kër njël. kon vraiment jafé jafé transport ci moment bii mooy amul benn boo dara loo xamante ni si rek luy génn la jëm ci chauffeur bi wala ci coxeur bi wala ci transporteur bi kon loolu moy li nga xamante ni si mooy jafe-jafe transport. man en personne damay wax ni état man duma ko fajloo du ma ko laaj ab dund mais dama koy aarloo ginnaaw kaaraangeeg sunu borom man état bu aaree rek jàpp naa ni état def na lépp ginnaaw yàlla xaj na nag réew mi euh, amul doole dégg nañu état ci secteur transport inter interurbain bii ma la tuddal. fi mu nekk nii euh, lu bari paralysé na ci. da fi ne buñ non départ rek bala nga bala nga amat fond bi nga amone rek da nga da nga da nga toogaat dir bu yag bo xamne parce que bay man da nga toogaat lu mat weer wo xamne ni da naka ci te ngay daw man na jur lu bare bare bare transport xam nga ku tam activité yo xamne du toujours yaa daw ak a nga toog lu mat lu upp 15 jours yo xamne togo fi nga nek jogo fi léeg-léeg nga doxantu ñëw gaaras yooyu ñoo rek ñoo fi dajé mais du ñeneen isaak moy ndimbal nak gaaw parce que raxasu nak te gisoo lo lek baaxu raxasu mo baax na pour set waye raxasu ba nopi te gisagoo lo lek non ñi taxaw bo ba legi xam nga lolu neexut moo tax mu ndimbal bëgg nañ mu gaaw lool lool ndax booba léegi ñoo ngi gaare comme que taxawaay bi métti na sa fukki fan ñaar la ñu téye woon sa yokkaat na ko sa xamuñu kañ la dañuy ñaan nag mu gàtt dañuy ñaan mu gàtt li ñaan mu gàtt dañuy ñaan feebar bi deltu ginnaaw état mi ngi wax ak suñu président regroupement muy IDICA di président national aussi joxe nañu fiche boo xam ni dañ cee bind liste des chauffeurs transport interurbain mooy ñi nga xam ni moom dañ leen a banqueloo seen loxo complètement muy sept places minicar car ak biche ñooñu ñu ngi leen di bind xaj na di xaar lu ñu leen dimbalee euh, gisaguñu ko nag ñëwagul xamaguñu nan lay toll mais loolu daal mooy li nga xamante ni si xaj na ah secteur transport ñu ngi koy xaar ci état. sunu liggéey moom doxatul parce que oto yi lañu yaakaar te oto yi liggéey wuñu kon suñu liggéey doxul waaw président bu mu joxe ndigal ñu fatta daal fatta boobu la ñu naka te oto yi la ñuy yaakaar oto yi liggéey tuñu moom koy doxul rek ngay waxal parce que ci biir kil la ñuy nakke li nga gis ñu dafa tamit lu mun a ñàkkar rek mais kenn nu jëndul kenn na jëndul yow yaa ngi gis sa place bi li mu wet kenn du jënd parce que nit yi amuñu ba jënd oto yi di dem di ñëw moo tax ñuy am client léegi oto yi gisituñu ñu dem di ñëw kon a ah, amuñu li ñuy jaay dañuy toog rek et puis perte bi fàttali ñu moom fàtt boobu la ñuy nekk kon li ñuy sëq ci ñoom mooy lépp loo xam ne ndimbal la nañu koo defar ci suñu loxo parce que ñun tamit liggéey wu ñu defuñu dara dañuy togg rek lekkuñu naanuñu mais courbe fooy bi nga xam ne moom la ñuy supporter lool la ñuy supporter bu ñuy toogee bu ñaamul bu ñaamul yëpp dañuy daf fat parce que yoon la nit munul wees ere bi nga nekk yoonam yoon boobu ñuy déclaré yoon boobu la ñuy sàmm ñun seetu jur waaw